sayiduna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonentu bu tedd bi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaxa mbàkke yàlla ko fi yàlla bàyyi noonu lañ koy ñaanalee itam xalifa ba ca Tiwaawan sëriñ Babacar Si Mansour di ko ñaanal mbooleem kilifa diine ci réew mi yépp ak waa daara ak ñiy jàngale alxuraanul karim yàlla na leen yàlla taxaw te defal leen jàmmi àddina ak jàmmi àlaxira émission bi nga xam ne nag moom lañ leen baaxoon a amal ci alxamis bu jiitu ci weer wi ñu war cee ànd ak suñu mbokkam daara di borom xam-xam di gëstukat sëriñ maxtaar kebem Cheikh Salih Mbacke moom lañ dalalaat tey fii ci euh, yaatal mbindum alxuraanul karim laataa ñu dugg ci waxtaan bi sëriñ Maxtaar ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah Cheikh Omar Silla maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu waa C3S ka ca bopp ba di alaaji sëriñ Seck sëriñ Fàllu sëñ Daam di siyaare it ñu ciy liggéeyee ñëpp banqaas yi ci biir réew mi ak fuñ mën a nekk waaye di nuyu sëriñ Mbàkke Surang suñ mbokkum daara mi génn léegi te ñu seqoon émission bu am solo muy yaru ak yare di la nuyu bu baax di nuyu sëñ Moustapha Sarr sunu technicien bi di nuyu bokk yi nga xam ne ñu ngi safoo ak déglu émission bi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax. jërëjëf sëriñ Makhtar. Mhm. gannaaw kàddu yu nuyoo yu am solo yooyu. Mhm. tey ñu ngi jëwaat ci boole mhm. yi comme ni ñu ci daa ñëwee. di fàttali rek ne. mbooleem boole yi ne ci al alquran dañ ko mhm. tàmbalee ca baqara mhm. war a ñëw nag ba ci minal jinnati wan naas yi kon mhm. yow mi topp lépp lu la ci raw rek boo demee ci chaîne bi di nga fa fekk émission yi insha allahu taala mbooleem boole yi ne ci suratul baqara indi nañ ko noonu lañ ko toppee ci ali imran noonu lañ ko nar a toppee ci maida ba ci yeneen saar yi ak si minal jinnati wan naas yi loolu mooy suñu yéene di gërëm boroom kër gi alaaji sëriñ Seck ndax moo jàppandal liggéey ba ngeen mën cee jot ak euh, coordonnateur alaaji Fallou Seck ak sëriñ Dame Touré suñu waaye di gërëm suñu caméraman Serigne Moustapha Sarr mhm. mi nga xam ne mooy euh, coordonné lii ba mu mucc ayib ngeen mën cee jot mhm. Serigne Matar suñu laaj bu njëkk tey mi ngi mhm. jëm ci natta tàlli natta tàlli bu ñu ko doon laaj ci wàllu boole ana mooy lan natta tàlli naayo naayo mooy ñeent ci xalpulaar fa naj allah natallaahi gallaay mooy Ali Imran li man xasiyal anata jigéen mooy sooratu nisa la ana tuxtaha la araaf allahnatullahi nga nuur nata tàlli njeego nun ak taa tàlli nun ko tagi kenn du ko bank dañ koy bàyyi mu tàlli nii jërëjëf sëriñ Muxtaar nata mhm. tàlli njeego mhm. ñaareelu laaj bi mu ngi ci yaa ayyuhal ladina bañ amanoo yaa ayyuhal ladina yi ànd ak amanoo dañoo bari sañ Omar mhm. ñu bañ amanoo nag yett la alxuraan ba mu jeex yaa ayyuhal ladina yi bañ amanoo ñett la ñett la ataw ma soxla oto jigéen haadu jumaa mhm. kafaru taxrim waaw yaa ay lësiinu bi benn bi di ci ànd ak amano mhm. mhm. jërëjëf sëriñ Moxtaar kon alquran yaa ay lësiina yi nga xam ne dañuy bañ amano ñett yoon la ñëw ci alquranu karim sëriñ Moxtaar ñetteelu laaj bi muy saa a bañ tooy saa a bañ tooy mooy lan ci boole shaa ay tooy tooy dafa bari illa ma shaa allahu innahu yaalamul jahra wa ma yaxfe day tooy ma shaa allahu day tooy illa bi ma shaa wasia kursi wa samawati wal arda day tooy yi ci dul tooy na ngi ne saa bañ tooy juróom saa a fa saa a wa saa a ala saa a saa a ma kulluhum yooyu benn du ci tooy siin googu nga xam ne day tooy. waaw daa am yuy tooy ak yu dul tooy. yu dul tooy lañ jël ber ko noonu. Mm-hmm. muy juróom. Mm-hmm. baarakallaahu fiik sëriñ Maxtaar. Mm-hmm. loolu am na solo trop. ñu ngi leen di waxal ne yéen a ngi ci émission bi nga xam ne ñu ngi leen koy amal. ci seen YouTube yaatal mbindum alquran di leen ko uh, baaxee. ànd ci compagnie Alaaji Sëriñ Seck di leen ñaanal gudd fan ak tawféex di leen wax rek ngeen gën a continuer abonné ci chaîne bi ngir mbooleem waxtaan yi ñuy def ngeen mën cee jot incha allahu taala sëriñ Maxtaar suñu ñeenteelu laaj mu ngi jëm ci bahum njeego hmm. bahum njeego moom lu mu doon ci wàllu boole bahum njeego hmm. njeego mooy juróom benn ci xalpulaar hmm. nasi bahum yaar jigéen ak xóot jigéen nag waxoon nañ ne mooy nisaa yusi bahum yaar ñu tënke ko ci ma nu njoogoog nóor muy muumi nag euh, maidateeg nóor tusibahum yaar ñu ngi ko tënk ci nu nuur ak xasas foofu fépp baxum la waaye du buxum du bihim jërëjëf dañ Maxtaar Kebe ci leeral yu am solo yooyu jëm ci baxum njeego suñu juróomeelu laaj mi ngi jëm ci maali lamara njeego maali te bañ a nekk maadi mhm. lamara mooy ak laam comme ñoom dawuñu ma xaarij mhm. daawuñ ko andiki faqli ma anta xaalin la mag ñi daan jàng mm-hmm. daw jàng faqdi ma anta qaad mm-hmm. ñu ne nag kon laam gi ñun amuñu ko nuñ koy tuddee nañ génnee yi nga xam ne laam wuy lamara lañ koy bindee mm-hmm. geneen goo fa gisaat kon laam ak boot la ñu ne maali lamara njeego saatan min al maali laam fa maali haulaai jigéen mooy nisa fa maali alladina kafaru saala la maa yaar la ñu ne fan la njenge ak furxaan njenge mooy ma mooy kaxfi min maalillaahi nga nóor maali la mara njeego kon maali la mara njeego mm-hmm. ci pël mm-hmm. ñuy fàttali ne baatu pël yi ngeen di dégg ci boole yi day wane rek ne alxuraan dafa jaar ci ñoom am taarix bu ab yàgg-yàgg moo tax baat yooyu yëpp ngeen di ko ci dégg mm-hmm. waaye li muy tegtal rek mooy am nañ ci wàllu wu rëy rëy ndax seen loxo la jaar ba tasaaroo sëriñ Maxtaar laaj bi ki topp mooy la alima la alima ci wàllu boole ban boole ci ñëw. daf ne la kenn du ko sàdda. la alima la alima. Mhm. mu ne la alimahu jigéen. Mhm. li amalikum. Mhm. shuara jam jam bayaar jam jam mooy amul suñu sàdd dañ koy bàyyi noonu. sadda moo am mbaa ab jam-jam buñ nee jam-jam nag mooy dañ koo way lu wayaf la buñ nee sadda dañ koo dañ koo dëgëral jërëjëf sëriñ Maxtaar ci laaj tontu bu am solo boobu jëm ci la alima laaj bi nga xam ne moo ci topp te mujj mooy tëxum taat yaar tëxum taat ñaar ko ñu ne tëxum taat yaar la sallatahum jigéen fa thabatahum baraan tëxum taat yaar geneen goo fi gisaat taati tombe la waaye nekkul pas marbuuta mm-hmm. jërëjëf jërëjëf taawul marbuuta moom mu ngi naan tuddee lan moom taati daroo taati daroo taawul eh, taat bi nga xam ne day day day day wéeroo eh, taati tombe taati tombe mm-hmm. jërëjëf lu eh, teqantal yooyu nag am na solo trop te suñu mag ñi mm-hmm. yàlla defal leen ci tawfiix mooy fexe nañ ba ni mu ñëwee ci alxuraan ñu wutal ko weneen tur wu mu nuróol ba yow ñu koy gis boo jàngul arab yi di ko xam daa yaatu lool sëñ Omar. Mhm. xam naa ni ñu dese ci waxtu bariwul. bariwul waaye bu ñu nee ngeen. Mhm. mooy agrasé guñ tomb. Mhm. bu ñu nee laañ. mooy deel yu ñu tomb. bu ñu nee mboccoor. mooy siin su tooy. bu ñu nee jorngel. mooy su waasa so kongo. bu ñu nee saat. ñu ne mooy riidu. riidu lañ koy tuddee. kon lu baree baree baree bari la. ci ñoom seen i seen i xuruuf abjadiya mhm. boo xam ne ñoo ko créer seen bopp soo demee ba ci ayn ngi miñ till muy ayn goo xam ne daa mel ni till gu ŋa mhm. dëggal ab dëggal mooy ni ki mu'tadina mhm. dëggal dëggal mooy fi nga boo aw fas fi ngay roof say tànk moom lañ niroo léegi aynam googu ñu ne mu'ta dëggal danañ ñëw ci boolee mu'ta dëggal moo indi ay dëggal xanaa waaw xay gu mel ne ab dëggal la xay ndigal mooy xay népp dëggal mooy boo toogee ci fas fi ngay teg sa roof say tànk jërëjëf mm-hmm. jërëjëf sëriñ Makhtar Kebe ci leeral yu am solo yooyu mm-hmm. mbokk yi ñuy fàttale ne émission bi mooy seen fukkeelu numéro ak ñett mm-hmm. ci émission boole yi di sant suñu mbokkam daara Serigne Mbacke Sourang borom daara Faysal Asir ci xam-xam bu rafet bi ak émission bi nga xam ne moom lay ànd ak Serigne Makhtar mi muy yaru ak yare wax dëgg yàlla réew mi yëpp di ko safoo kilifa yëpp di ko seetaan itam ngir xalaat yu rafet yi fi génn nga xam ne ku koy déglu rek sa bopp ngay njëkk fàttaliwaat laataa ngay fàttaliwaat keneen yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex di ñaanal c 3 yàlla na ko yàlla yokk te barkeel ko ak mboolem bànqaas yi mu am ci réew mi yàlla leen yàlla defal jàmm di sant kilifa gi alaaji Serigne Seck ak Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne moo koy coordonné ak Serigne Dame Touré suñu xarit bëgg mburoog ceeb in uridu illa suñu waxtaan laata ñu jëgale ci waxtu jotaay bi yan kàddu ngay tàggoo xanaa kàddu yi ñu góorgóorlu bu baax réew mu ne dañoo am seeni réalité mm-hmm. te ñun suñuy mag andi ko mm-hmm. te fiñ ko indi di ci sun téere boroom muy alquran indi nañ ko nag ci yeneen domaine mais domaine bii niñ ko capable ak niñ ci spécialité ak niñ ko indee day mel ne keneen mënu cee dolliwaat leneen lu gën a foor lii dëgg la la chair ba neen wa indi wa in kuntul axira zamanahu la bi ma ajasa l awailu na su moom lu muy yeex yeexe ñëw danaa fi andi lu fi mag ñi andi wutoon ba itam woowu moom boolee mag yi da koy weddi kon nag xam-xam la boo xam ne mi ngi raaf di dem ndax coono yañ ci daan daj mokkal ko da daan metti dangay dem bind sa nisif ginnaaw boo ko boppoo doo ko xool jox ko sëñ daara boo xam ne moom itam ba koy topp du ko xool te boole wum ci àgg wu nekk jox la ko ne la boole bi ma nga barab sàngam limal la ko ba mu yegg la cay ay pël mu ne la ay pël la la cay ay wolof mu ne la wolof la loola lu rëy rëy la ñiy liggéey ci ordinateur yi bu ñu leen joxoon dix ans ñu bëgg def lu mel noonu mënuñu ko créer. dëgg la kon boobu tërwa. Mhm. ilmiya mhm. muy benn koomam xam-xam. Mhm. rek waaye nañ ca delluwaat nun ñi nga xam ne buñ ko sàgganee ci suñuy loxo lay réeree. nañ fexe ba saytu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Makhtar Kébé moom Cheikh Salihou Mbacké alxuraan a ngi noonu loo ci xuus rek gën a gën a kontaan loo ci xuus gën a bég. xam ne tanzilun min rabbil alamin wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusalun yàlla ñu yàlla defal bëgg alquranu karim tënku ci ay ndigalam bàyyi ay tere amiin ak in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu rahmaani rahiim nuun wal qalami wa maa